sur RFM. ayca jërëjëf euh, Abdoulaye Diop jërë ngeen jëf euh, ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye Bane maa ngi lay ziar bu maa ngi lay bëggee bu baax di la ziar di ziar Ndiaye di ziar euh, ñëpp ñu ngi xam ñu ngi déglu rek yàlla yàlla def jàmm ci réew mi waaw ñëpp am jàmm. Hmm. ñëpp mucc. Hmm. yàlla def ci wér-gu-yaram yaram yi te def dara ci poos yi kër yi naat ndox mi dem corona dem. ndox mi dem corona corona dem amin ñu neera bi Ndiaye maa ngi ziar. maa ngi delloo ziar Ababacar maa ngi nuyu Ndoye Bane mhm. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen ñaanal jàmm. am na solo jaajëf yow dafa am uh, ay xale yu réer bu yàgg sama benn bàjjen bu nekk fee ca Thiès moo leen yore uh, benn xale bi mi ngi tudd Xaadim Ndiaye nee nañ xale xale bi nee nañ mi ngi dëkk Onkat ci Mbour quartier Onkat Mbour mhm. keneen ki mi ngi tudd fàllu Badiane ba dëkk Saalum ci dëkk kër gu quartier bu naan Mborokunda xale yi ña nga Thiès ku ci bëgg a xam dara soo wooyee passe-partout ci cent 150 17 17 dinaa la booleeg sama bàjjen boobu nga xam ne moo yor xale yi xale yi war nañoo def weer ci sama loxo bàjjen boobu gis ma ne dama koy fàtte. Mm-hmm. waaw beneen bi sunu mbokku euh, enseignant yooyu euh, ñiy def EPS. éducation mm-hmm. physique. Mm-hmm. ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax ndaxte démb bi waxtaan xam naa ni nañu waxee xam naa ni neexu leen. Mm-hmm. Euh, te wax dëgg yàlla éducation physique et kii métier mu baax la. métier bu bu bu la mais xam naa ni nañ déggee wax ja moo xaw a moo xaw a doy waar wax métti rek. Mm-hmm. waaye ñu ngi ci ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax amoon na. ñoom ñëpp a baax kenn rek a ci bon ku naan Modou mbay sama doom bàjjen la Modou Mbaye la. kooku moom xam na nit ku bon man xam naa ni nit ku bon la moom moom moom day agressé day dóor lépp lay def ba pare dem école. Hmm. Modou Mbaye beneen xarit bu ñu naan JP. ah moom it ku bon la de. ah yaa ngi cay yegg <laughs> moom xam naa ne ku bon la sama doomu bàjjen. kooku de li ma ko xamal moom. sàcc yére su laaj yére nga jox ko ba pare mu sàcc day da nga ko jox pare mu sàcc benn yóbbu. yaa ngi ci njàng mi dafa am benn xalaas bu ma wax euh, bu xew euh, lycée mixte bu Thiadiaye. Mhm. nee nañu jury 1220. Hmm, hmm. série S2. candidat yi. dañoo def bac ba pare. am ci ñoom quinze yoo xam ne dañu leen déclaré dañoo admis. ñu dem xool liste ba photo photo ko kontaan ab diir ñu yónneewaat leen dañoo juumaat ca liste ba am ñeneen ñu ñu ca dindi am ñeneen ñu ñu tafaat. Ah, loolu ñu ko mënee. ñoom nag dañoo jaaxle lu tax ñu ne mi ngeen ba pare defaat beneen liste boo xam ne dañoo waat yeneen i tur loolu ca lycée Mex bu Caajaay la. Caajaay waaw nee nañu nag nañ leen dimbale wax leen lan moo ci xew. Hmm. xam nga diplôme ba mu neex la nga ñëwaat ne la non dañoo juumoon wala bokkoo ci ñi am diplôme. te hmm. ñoom dañoo affiché liste ba liste bu njëkk baa ngi nii après ñu changé waat ko defaat beneen liste loolu daf leen a jaaxal. yooyu moom ndax dinañ ci juum wala est-ce que dañ cee war a juum admis nga. Ah. ba nga yaakaar nga ñu ñëwaat ne la damaa juum. nit ko de ah lu juum mën a métti métti moom xam naa bi yee gën a métti moom ci ay juum. baan xalaas bi njëkk lu mu wax ah. ah nañ ko nañ ko lijjanti loolu métti na de. dañ ko dañ ko lijjanti ci loolu métti de ñun année bi ñuy def. bag dem di jëli kii. daje ki gën a ki gënoon ay ci ñun. Hmm? yéen waaw suñu suñu clique bi suñu groupe bi quoi. Hmm. ne ma non malheureusement. <laughs> ma ne ko ci kan ma ne ko ci ma ne moom amul daal. yaa ngi koy yàlla dama ne fekk man nag yàlla yàlla dama dimbali bu ñu Sadio Mané gisul. wallaahi na ah, <laughs> la xam nga li yàllay def rek. Hmm? moo tax yàlla ngeeg kon bi mu bi mu nee leen mareur moom moom yéen da ngeen a dëpp déedéet ah danañ jëm dundee yaakaar ay Yacine ndax moo leen dàqar a jàng moom amul moo ñu gënoon a taqe fop amul xam nga moo xoolal wóolu boppam moo tax moo jiitu ca sa kii ba délibération xaw man toog ma fa man di fa xaar ay bag ba ma fay fekk mais Ndiaye dama daan seetaani man bag moom dama daan seetaani mës naa seetaani benn waaye ñu wax ko onzième onzième année boo xam ni moom lay tëf bak gaa yi ne ko échec na moom tamit bii yoon amatul xool turam ba sonn amatul mu sigi xool ki nga xam ne moo doon délibéré xool ko ba jàgg jooy ne ko bëgg yaa ma defaat nii tey mais tant que bëgg ngi am man je bagarre. foofu rek xoolal foofu rek ngay bëgg a changer sa sant. bu ñu nee Diouf Amadou fekk yow Ndiaye Mamadou nga tudd. da ngay da ngay rëcc loo sant Diouf. <laughs> sant Diouf. ban ban fan nga jëm en xale yi <laughs> eh, Ndiaye ku am bag ku amul bag xale yi ñu ngi félicité ñëpp parce que bi métti woon na métti goo xam ni. ku ci def bag rek. Euh, mooy tu waaw waaw waaw. ku ci def bag rek mooy tu as réussi. waaw waaw macha allah. Ndiaye. am beneen affaire sax dañ koy sóor. nit ki du wóor loolu dul wërsëg. dëgg la ah. déggoo Kunkande benn candidat boo xam ne. Mhm. Mhm. admission bàmmeel la koy fekk. dëgg la loolu lu ko jar. dëgg la c'est-à-dire yàlla daan na ba pare yow def nga bac. Eh, pare woo sax épreuve yi. dëgg la de. am crise jaare fa faatu. dëgg la de. résultat yi génn sa ginnaaw. ak mention ak mention. lu mu lay jariñ. wallaay wallaay dëgg la dëgg la de. nañu positiver rek. nit du am lu dul nit du lekk lu dul li mu war a lekk. doo am lu dul li nga war a am. moo daal prof EPS maa ngi leen di jéggalu. ñu ngi leen di jéggalu. ñu ngi leen di jéggalu ñoo far daal ñu ñëpp far. waaw ñu ngi dégg xam nga ay professeur dañoo garaaw de. suñu la meree. Mhm. ci groupe whatsapp yàlla lay jàpp. waaw di la débat te dañoo dégg tubaab. <laughs> te xaw la éducation bi dañuy entraîner suñu la carré. Ah, ay karatéka ngi ci. ay boxeur ngi ci lépp a ngi ci. man sax bi ñuy wax démb waxuma Ndiaye doon wax ak Aba. non non man damay anime yéen ñaaro doon wax man <laughs> ñaar la. baan fi leen moom xew la de. baan kii lan lañ ko dóor wala moom. jaay ko ciment yi. Mhm. jël leen seen pause. Hmm? déglu. waaw man tey nii daa am ku ma dóor du man rek la dóor sax man ak sama beneen naataango bu yor kenkaay yi man ñun la boole dóor. dóoru nag dóor dóor na mu ñu ko dóoree dafa simple parce que daf ma woo sama sant la jaar quoi comme man sama sant lañ ma a jël ko la ndax doo mën a ko ah, man yoruma xaalis daal ne ko xaaral man ko ah man de cent mille francs laa yor kon nag mënu maa jël mënu maa jël parce que ma ne ma léegi kon jëlal deux tonnes ma teg ko si oto bu ndaw wala ma teg ko si saret la ko léegi comme ça yow suba ma mottali la ma mottali la nga ma jaar fa ma jaar sa place comme xam naa sa place ma jaar fa ma jox ma li des ma ne ko may yow man yow la kan sax mu ne man la Babacar Touré ma ne ko Babacar Touré ban mu ne ma yow da nga maa xam nga ma boo da nga ma dul da nga maa gëj a gis rek mais boo ma gisee di nga ma xàmmee dama doon ñëw di livré foofu mais sama camion daa panne te comme mi ngi taw nii xam nga bëgg mu fi bàyyi ciment muy am problème mais dama bëgg ñu réparé oto bi le temps que ma indi benn oto bu ndaw bu muy livré ma ne ko d'accord kon indil ma deux tonnes jox la cent mille franc et bu subaa boo jaaree ma complété li si des euh, sa place moo nekk di fan si Kounoune sax ma ne ko déet yow xam nga ma xam nga sama place bi nekk si Kounoune ma ne waaye xam naa sa place mais nga ñi ma xam Kounoune dañoo bëri xam nga man xam nga répertoire rek laa xool daal lay woo xam naa ne Kounoune nga nekk. donc boo ñëwee ba si buntu marine française boo tourné rek jubal directement ba sam place ab tulu jàdd boo yëgee tal bi ñuul rek maa nekk si angle bi mu ne ah waaw waaw waaw maa ngi ñëw mu toog ba yàgg mu waat ma ne ma léegi du ma ñëw dama yabal booy yi ñu ñëw ñu ngi yor benn camionnette L200 bu weex soo nii xam naa léegi mu x place boo xee rek arrêté bu bu ñu yéegee si kaw tali bu rek ah arrêté ko man quoi tali bu ñuul koy man lay ma daal koy na ko yow fii la la Touré wax ma waaw ma deux tonnes yi ma woo ko ne ko maa ma de avant ma gis sax ma ne ko léegi xaalis kan laa ko jox mu ne ma waxoon xaalis man nga koy comme nekkuma man nga ma koy orange mu ne ma ne euh, nga may woowee mu ne ma non defal ma ko orange ma ne par contre léegi bi booy ñëwee rek mu woo ma ne ma booy ñëw nañ ma ne ko waa ñëw nañ wàcce nañ pare ma ne ko waa bu ne mais xaalis looy xaar ma xaalis laa yore mais yoruma compte orange ma ne amul xaalis li matul xaaral ma motali ko mu ne gaawul damaa yàkkamti parce que man damaa war a dem usine nii te il faut que damaa war a dellu usine te il faut que ma defar oto bi léegi ma yónni léegi frais yi koy fay mu ne ma non frais yi dindi ko sama côté quoi amul problème ma daal koy transféré xaalis bi ki ma wàccee kee moom wàcceel na ciment ba dem ma toog ba jëli tisbaar ma toog noonu rek camion man waa ji fayu ba léegi ciment bi laa gis ma ah waaja mu ne ma kii ma fi yabal fii man ki kii la fi yabal fii de man Babacar Touré la tudd parce que neen daf ma yàgg jaay ciment moo la fi yabal man envoyé naa xaalis daal di génne SMS euh, transfert bi yëpp wan ko ne ko fi ma dugalee cent mille wan ko bi ma ko transféré cent mille te numéro bi mu ma wooyee ma dugal ko si Orange Money par code bi numéro boobu tam moom la doon wooyee sa waay ma wan ko carrément ma ne ma ah kon de waa ji dóor na ma li ma mën a xam daal mooy cent mille franc laa ko avance reliquat bi nag moom am naa lu ma fi jot a jaar si diggante bi mën naa yàgg naa ku farlu laa tamit ku ñor laa waaye lii moom c'est parce que damaa gis ciment bi moo tax ma fay te yow bi nga ñëwee di ma livrer ciment bi laajoo ma dara mu ne ma non waa ji daf maa woo ne ma damay commencé ko chantier bu bees Kounoune yóbbul ma fa deux tonnes fan yii yëpp maa ngi lay woo doo jël sa papa laa muy woo mu jox ma yóbbul ma fa deux tonnes nga fekk ma sédiment fii fi ñuy luwee bant yi maa ngi foofu soo ñëwee ma fay la sa xaalis. waaye ji tamit ba mu ma wàccelee ciment bi rek dafa daal di jubal waxuma dara nag comme waxuma dara daal ñëw rek wàcce ma wàccee daal def demi tour dem yoonam pour man amul problème mu dem sédiment di woo waa ji fekk na boobu xam naa waa ji jot na encaissé na cent mille francs yi mu ko yónnee muy woo waa ji bu mu ko jot bu woo ba sonn mu bu toog fa toog bu mënu fa toog mu wàññeekuwaat ñëwaat sama place dama ciment place gis ma ne man waa ji dama ko fay ay cent et quelques mille la matul sax cent vingt cinq mille waaye léegi ku mel noonu nag il faut que nit ñi bàyyi ci xel parce que waa ji nee naa ko demal nga déposer une plainte à la police soo déposer une plainte man euh, transaction yi mi ngi nii sam portable orange ma ne avec code c'est avec un nom Babacar Touré Babacar Touré boobu bu ko yóbbee Sonatel dinañ xam fan la retiré orange ma bi est-ce que il a présenté une carte d'identité waaw léegi nag jox naa ko reliquat bi nee ko bi semaine prochaine jaar fi dinaa ko mottali ba mu mat jógu une tonne comme ça bu ko defee yow nga perte une tonne man ma perte une tonne waaw parce que tamit <laughs> man je n'ai rien fait comme foot waa ji daf ma fekk sama place jaay ma ciment par téléphone la wax ak man gisuma ko mais daf ma xamal carrément ñun man yaa yaa yaa xaw ma jaay ciment ñëpp mënu ma leen xam ñi may jaay ciment ñëpp mënu ma leen xam si kaw talib laa nekk camion day ñëw ma jënd am na benn borom camion boo xam ne dafa ñëw wàcceel ma ciment wàcceel ma vingt tonnes ciment mu nekkoon un million deux cent et quelques mille ma ne ko bindal ma facture mu ne ma yow mosuñu laa jaay ba ba jox la facture pourquoi ñu lay laaj nañuy laaj facture man ko mais transaction boo payee vingt mille dafa war a am facture bindal ma facture loolu dañ ci xuloo ba kooku ne du ma jaayati pour que alerter yeneen gars yi xam dañu xool ko yor kenkaar yi parce que romb na sama kenkaar yi gis ne fii c'est vide ciment nekk mu wóor ko ni man mi soxla naa ciment mu romb beneen kenkaar yi xam naa ne gis na ni foofu am na ciment bu doy mu ne kii ko ne ko ne damay jënd ciment dina sawar pour jox la daal di jël sama numéro ci sama bunt dem jël numéro kooku si buntam fexe ba door dilam daal système bu nekk am na njaay. yéeme na de. mais soo dee xool soo xoolee ci suñu keesu xalaas gi. am na fu ma def dealer un dealer deux dealer trois. boobu investigation yi moo des. leer na sax mais suñ ko tegee nii day am ñuy daw. suñ ko instant bi suñ ko tegee cerveau bi day daw moo tax instant bi teguguñ ko mais njaay ñun ñi yor suñu sunu sunu xaalis ci banque yi. xam na su jàllee ñu bari du nelaw de. Hmm. ah waaw. ngay wutal la carte d'identité su ma ko waxee waa ji day daw sax. ah mooy bi nga doon wax. bi ma doon defar démb lan solo yére yu baax. waaw solo yére yu baax fexeel ko bàyyil ba mu yemb. léegi nag borom ton yi ciment yi moom mu ñu koy dijjante ah vigilant rek. waaw léegi nag euh, il faut nit ñi comprendre gis nga ñoom ñiy ñëw di wax lii. Hmm. bu ñu waxee ba ñu teg ko rek ñoom liñ ci jublu am nañu ko. mooy lan yee seen moroomu commerçant yi. Mhm. ba du ñu dund lii. jaay commerçant nga wax. Hmm. déglu kii. Euh, service laa yor dama amaale ci biir cosmétique ay parfum ay diw yooyu noonu yëpp dama koy jaayale si biir mais tey dafa ma arrivé benn affaire boo xamante ni musuma dal te damay bañ aussi mu dal sama benn moroom moo xamante ni da ciy liggéey dafa am benn waaye bu fi ñëw sànq yor ay parfum di ko jaay yaa ngi dégg mais parfum yi muy jaay dañ ko amle de telle sorte que bu la soree doo xam ndax baax na wala baaxul te day yor bu baax bi parce que man noonu la ma naxee jaay na ma ba dem ba ma war a teppi affaire yi pour ranger ko ma soog a xam ni daf ma dóor parce que parfum bi muy yor di la ko di la ko laalal nga mos mu neex bokkul ak yi mu paqueté di ko jaay yi nga xamante ni daf ko paqueté di ko jaay dañ ko sol soit ndox lañ ci def wala beneen odeur bu bon boo xamante ni yow boo ko teppee sax da ngay mere sa bopp sàng la ma ko def na jaay na ma dem na ma bëgg teppi pour rangeler gis ni li ma jaay baaxul te wax dëgg fa yàlla ni ma dalee ni damay bañ mu dal sama beneen moroom parce que léegi gars yi nu nekk la ñuy def pour am la méthode buñ mës a laal ñu lalli ko bii nag moom moo ci desoon moom man moom bii mi ngi may soo ko dal parce que ci d'habitude dama daa wax naan kenn mënu ma nax kenn mënu ma dóor mais tey dóor nañ ma te xam naa ni ñu ma dóoree nii mën nañ ko dóore sama moroom ni xottu lañ lay jaay xottu yi nag dañ koy duy am na lu ñu ciy duy xaw ma ndox la xaw ma lu mu doon mais tant que teppi woo affaire bi mënoo ko xam te en bu ñu lay jaay dañ naan la promotion lañ nekk dañu nekk ci promo dañuy walla boog damaa jaay ba ñaar dese ma damay ñibbi nii waa ji loolu la ma dóoree maa ngi Tuubaa mais dane ma ñaari ñaari paquet yi dong dese Jurbel laay laay laay dem waaw Jurbel laay dem damay dem léegi nag fay naa ko sama xaalis dóor na ma mayuma ko ko tey mayuma ko ko ëllëg mais damaa xam ne mën na ko def keneen ku dul man waa xaalis bi nag du dara ñun ñoo koy liggéey rek waaw comme que ñoom dañu ñàkk jom di topp ci nit ñi di dóor ñun nañuy ñaan yàlla rek a chaque fois nañuy yor ñoom ñu ñuy soxlaal waaw ki ma ko jaay góor la góor la dafa yor moto sax la yor moto jakarta la yor ñëw gaare sama bunt place xam nga yor saagam def ci ay parfum yooyu noonu ñëw na ma dafa dafa ci ñaari moo ko desee day ñibbi Jurbel affaire yooyu noonu góor la quoi xam nga benn waxambaane la mais ni ma def métti na ma billaa wallaahi nit ñi ñoom dañuy xëy di wuti lu nu def di xëy di euh, def ay occupation yeneen nit ñi ñeneen ñi di xëy di wut ñu dóor. da ko dóor la de. Ah, bis bu nekk bis bu nekk ak bu bees bu buy buy génn. bis bu nekk. kii ñu ko dóor sax na sant yàlla bariwul. Ah, de parfum yi. Hmm. gars yi bi ñu yoree de la ko piisal mooy baax ay ci carton yi dara baaxu ci des fois nga gis sax ko yoo xam ne ñaari parfum rek la yu yu niroo piisal ni la jaay bi bi nga gis ne parfum bi dafa neex nga gis sa xaalis jox la ko ba mu la piisal du moom la la jox ba mu la jox baaxul ñaar la des fois tamit nga dem ci game bi fii nii. nit di la jaay benn jiin da daana xew jaay la jiin xool nga natt jiin bi yëpp bu nice mu dëgal la ci mbuus fekk ñaari mbuusu ñuroo la gis nga lem na la dugalal ci mbuus moment bi ngay génne sa xaalis changé na mbuus bi ba jox ko benn xaritam mhm. jox la benn mbuus boo xam ne ay këyit ci ne wala leneen la ci ne yow da dugg ba ci kaar bi xool lem bi doo gis dara loolu ku yàgg dem maquette am na ay yëre yu ñu fi daan lem di ko def ci ay mbuus mm. doon koo jaay par saay da nga kiy jënd fekk ci benn loxo yenn saa yi nga jënd fekk moom am ci kanam rek du am ci ginnaaw. non loolu la nga ci si si yenn saa yi nga ah. jënd fekk ci kanam rek lay am du am ci ginnaaw. Mm, mais man fi ñu toll nii sama euh, man fi ñu toll nii xam naa classe gi damay bàyyi yéen ñaar ngeen eggali ko. Mm. man damay toog nii rek leen wétali mënuma participer man banque ba am naa fa soixante quinze mille. ban banque. benn banque rek. <laughs> kii li wax ci banque yi nii dafa yàq sama àdduna. dama bëgg ñëw commencé dox daje bi. c'est waaye loo wax ci banque bi nga ne. non banque bi dinañ ci ñëw. banque bi kay saa li ma lay nettali ci suuf mu xam naa. moo la dara fukki junne ak juróom ci banque bi. <laughs> barki waay bàyyi bi lii xoolal Ndiaye xool Aba ñun ñoo la Aba ñun ñoo la mag déglu dox daje bi. ni ñu xamante nag te bu ma tëb rek xam ko sama benn xarit moo ko gisoon Intécase si case bi noonu mu toog fa ay boori vingt deux heures yooyu triste léegi bi mu fa nekkee ay boori deux heures yooyu tamit sama xarit bi fekk ko fa. laajte yow lan ngay def fii ak guddi gi ñu expliqué ko mu ne ko man dama nekk sama bàjjen te man sama bàjjen bi jubóowuñ te man dama jege woon Fatick di fi liggéey si rek léegi nag moom dañuy xuloo bu dee bëccëg ma génn néeg bi léegi damaa bëgg foo xam ne dama fay liggéeyee di fanaan damaa xëy di yendu wër ba sonn aw ma te maa delluwaat ci néeg ba sama copain bi tamit moom mu tëbul tëb indi ko mu ñëw expliqué ma mu ni ma dafa am benn xale bu jigéen ba ma fekk fi ko ma mais moom nee na jubóowut bàjjenam day bañ a joteeg moom moo tax mu génn néeg ba di ut leneen feneen foo xam ne dafay liggéeye dafa man faa fanaan te sa grand sœur bi mi ngi la doon ut loo jànq est-ce que doo ko expliquer. ma demee ba gis xale bu jigéen bi man tamit sama sago mayuma woon ma bàyyi ko foofu man tamit tëbu ma tëb yóbbu ko ma dem yóbbu waxtaan ak sama grand sœur bi sama grand sœur tamit ne ma léegi danga may bàyyi ba ma waxtaan ak sama jëkkër ba pare moo waxtaanee jëkkëram. jëkkëram ne léegi na ko fi indi ñoom ñaar ñoom ñaar ñu waxta ñu waxaale waxtaan ba waxaale tamit ñuy liggéeyee système bi ñuy liggéeye matul sax yaay une semaine man ma tàggoo ne damay ñëpp si fii mbuur bi may ñëwee ñëpp si mbuur daan déggante moom sama téléphone grand sœur bi bi ñuy déggante ñuy waxtaan benn jour mu léegi dama la bëgg a mbuur man tamit ma d'accord ne ko ñëwal ba mu ñëwee ñëwul suñu kër direct dafa ñëw fekk ma sama bër kër benn xarit mu yendu fa ba ngoon mu daal di ñibbi ba mu ñibbee nag ñu teg ci ay quelques jours man tamit ma dem Dakar di jënd ay tissus ñëw liggéey di jaay fii léegi bi ma ñëwee di jaay fii tissus moom mu jekki mu toog ba lañ dem bañ ne lendemain la Tabaski mu jékki-jékki sax kon tàgguma bu muy ñëw sax tàgguma dafa jékki-jékki ñëw sama kër copain boobu sama kër copain bi mu ñëw nag ba mu ñëwee sama copain tamit teg talaat ko suñu kër mu ñëw fekk ma boobu maa ngi toog ak sama yaay ak samay sœur ak yépp mu ñëw mu ni ma léegi damaa bu ñëw pour jullee si fii te parce que mënuma dem sama kër bàjjen parce que avant ma fay jóge woon naa fa lu yàgg te bi ñëw na mu yëkkati xaalis bu ñu fayeeku woon mu jox ma ko ma delloo ko xaalis mu jëlaat xaalis bi dénk ko sama yaay ba mu sama xaalis bi nag ñu toog fa bañ tabaski ba pare bañ tabaski ba am une ma ne ko léegi nag yow bëgg mu ma léegi damaa bëgg ma toog fii di liggéey su ma liggéeyee ba jor benn somme bi nii yow tamit ngay liggéey ba yor benn somme bi ma ànd ak yow sama papa ñu yëkkati li ñu yor jox ko ko moom bu ma lay may mu may ma la bu waxtaan ak sama yaay mu may ma la man mënuma laa mënuma ànd ak yow di ñaani léegi dama bëgg yow sa jëmmi bopp yow kase nga ànd ak yow sa tànk nga dem ak sa bopp sa papa nga expliqué ko ma sa papa ak yére pour ma ñëw nag waxtaan ak moom ma soog a dem ñu waxtaan ci loolu ba mu dee ba bàyyi bàyyi vingt heures bàyyi vers vingt ay vingt une heures mu gunge ko ba croisement kaw la jox ko cinq mille francs pour mu paas ci xaalisam sax laa moom moo ko jënd xaalis bi mu indi moom lañ ko moom la jëndee ay yére ma jox ko cinq mille francs mu dem bi ma ko jeexee cinq mille francs yi pour mu dem mu dem ba ay bëri vingt trois heures mu ñëw fëggaat suñu wér ma ne ko lu tax dem mu ne ma dem man kese parce que damay ragal ma dem sama papa téye ma fa léegi damay bëgg damaa bëgg yow ak sa yaay ak man ñu ànd dem léegi nag ci diggante boobu saa yu mu xëyee ma ne ko da paasal nga dem saa yu mu xëyee ma ne ko demal saa yu mu ko ba sama yaay ne ma munoo bàyyi ki nga xam ne yow yaa tax mu toog fi heure bu xëyee nga dàq ko ne ko demal ma ne ko meen ma ne ko maa dafa wóoru parce que wóoru ma ndax ay mbokkam ñu ngi koy seet te mën nañoo xëy xëy ne dalaa ak pëlis fii te boobaa ñu man maa am problème ak yow ñun ñëpp ñoo am problème sama yaay ne waaye loolu ñu bàyyi ko fi rek bu ñu demee ba yàlla may ma sama bopp ba am ba ñu féex suñu loxo féex ànd ak moom dem man ma génn ci bàyyi muy nekk ci gàlle léegi nag li li tax lii yëpp am ba benn ba si kankurang bi kankurang yi yegsee ba benn jouru samedi mu ñu ma léegi nañu ànd doxantu ji léegi bi ñu àndee doxantu ji nag bu benn heure bi mënatuñoo ñëwaat ci kër gi ñu guddee ma ànd ak moom dem fanaan sama néegu benn xarit. lii ñu jot a sekk si lañ ko sekkee ba yàlla teg ñu ci nattu gii nii. quelque temps mu may tooñ naa ma dama ëmb dama ëmb ma ne ko booy ma ne ko léegi da ngay kaf wala kafoo mu ma bu demee ba si yàgg mu ma dama la doon tooñ rek dalaw dalu ma suñu waxtaan ba si yàgg mu ne ma dama ëmb mu demee ba si yàgg mu ne doo foo rek ñu dem ba benn instant sama papa tamit commencé ñëw sectionné ci kër hmm? li ci yéeme mooy. naka la sa doom bu góor di indee jigéen ci biir kër gi. nekk fa bàyyi ne fa yaay ne fa ndijaay nekk fa. léegi ngeen génne xale bu jigéen mu réem yi bi ngeen bàyyi ko fi ba lii di ko ci daal. ñu nekk fa ñu nekk ci kër ga. beneen question bi mooy ndax moo ko ëmbal. Ah, voilà. à suivre waaw léegi man affaire bi à suivre. ñii ñu naan Akon City ñu naan bu ñu fa ñëwee. Ah. yi fa ñëw yëpp dina bari Akon lu fi indi rek fekk na ko fi. kan moo ko lu fi waaw dëgg la. Sopé Colobane ak Sandaga du saa zone du Fatick Sports Victoire Gorée président de la République ak ci palais de la République muy résidence du président de la République bi nga xam ne moo demoon situé dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 mu nekk la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor Diatta 1964 bi Abdou Diouf 82 Abdoulaye 2000 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fi ñëwaat fi nu xaaral ma xam kii woote ba ko jot président de la République kooku kan la war a woote fan lay doon asalaamaaleykum. allo. waaw. Ah. oui bonjour ça va. ça va. c'est Moussa, Moussa euh, l'ancien directeur de Kademdek. Moussa Diop, l'ancien directeur de Kademdek. Ah, Moussa Diop Oui, ça va ci loore bien merci alhamdulilah yaa ci jàmm oui ça va ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah naka coono yi waaw ça va ça va bien monsieur Sow ça bien sant bu baax mbaa waral sa woote ci palais bi Moussa euh, euh, je peux avoir le président non président nag dafa jàpp ni occupé ah ok ok d'accord d'accord occupé quoi voilà voilà est-ce que première dame foofu première dame it dafa occupé yow mbaa jàmm la. général Moussa Fall mën na ko yóbbante ci moom wala. de moom it occupé. ah ok xanaa dañu am gan. pour ah loolu de dara wóoruma ci moom daal occupé laa la mën a wax c'est parce que occupé la. ok d'accord ok d'accord léegi dama lay yóbbante ci moom ah. waaw léegi bu ñëwee ne ko. waaw vraiment man ngi koy remercier. ci lan. di ko gërëm ci confiance bi ma joxoon ba def ma dak directeur Dakar Dem Dikk. waaw te j'espère que. amul dara loo xamante lu ñaaw defal naa ko foofa ci limogeage bi nag sama me fait droit au cœur nu kontaan naa ci trop ndax it wax dëgg yàlla àdduna lépp ay confiance la boo liggéey nit ki ba bokk ko jox leneen wala nga sentir ko ci leneen gis fa keneen man mën ko remplacer loolu nga remplacer ko cela ne veut yàqul dara ci sama diggante ak moom <laughs> parce que j'espère que liggéeyal naa ko loo xamante ne ni moom dina ci kontaan lool moo tax ma ne woon naa ko woo ko Euh, ci confiance bi mu ma joxoon te xam naa ni confiance boobu dara dara dindiwu ko. Eh, je sais bien te pourtant maa ngi dégg ci waxi président de est-ce que duñ la jox euh, direction générale car de car rapide. <laughs> waaw ba tey ba tey je serai d'accord y a pas problème <laughs> parce que confiance la mu jox ma ci liggéeyam ma di ko eh, liggéeyam. Eh, gis nga Moussa. oui. gis nga nit boo nekkee ci bërëb. waaw. fexeel ba loo fay wax nay lu rafet. oui. fexeel ba maanaam daal na nga fay nekkee après nettali ba na rafet. oui oui oui réew mi daal lenn moom xam naa ne jàppoon nañ ko ci say wax. waaw muy ilaa Touba bi nañ ko def ilaa Fouta. Euh, euh, monsieur Sow. monsieur Sow. ah di yaa ko fi waxoon. non monsieur Sow de écoutez moi bi écoutez. waaw monsieur Sow man dama woote pour yóbbantali ci président du yow yaa may jox conseil. Ah, di non monsieur Sow écoutez écoutez monsieur Sow. non non non écoutez lu ma waxoon ak lu ma waxul lépp. loolu j'espère que bon ce ce ne sont pas tes oignons. nit ki damay non non non monsieur Sow mais monsieur Sow déglu ma. déglu ma. billahi wallahi tallahi gis nga li ñu may gis ni waaw koj la ci ginnaaw wala ma koj la ci kanam du dara ci man. non man boo ma kojee dama loolu sa yoon nekkul non dama la woote monsieur Diop. dama la déglu ma non non dama la woote pour nga waxal ma président li nga xamante ni moom laa ko wax su fekkee mën na nekk ça va su fekkee mënut a nekk nga wax ma barke Serigne Touba booba tooñee. Eh, dinaa la eh, bàyyi nga génn ci biti ma jàppale di la tàllal jàpp sa nunara di ko tàllal di ko tàllal ba mu ne ñooy maanaam loo maa la large dama ni dama ne wax rek non dama ni Moussa waaw Moussa Diop yow yaa nekkoon directeur général Dakar Dem Dikk et ça cela on n'en xam nga man lu ma ci jaaxal. lan lu la ci jaaxal. maanaam yow bi la Macky wàccee. waaw réew mi yëpp dañoo dugg ci internet bi Facebook bi Instagram bi YouTube bi ñëpp naan merci président merci président lu tax. loolu ñooñu la intéressé parce que man je ne je ne regarde pas les inter les internautes di wax en fait du n'importe quoi <laughs> loolu kon yow dañ la teg foofu pour nga. du ministère de la santé et de l'action sociale de ce mardi 8 septembre Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 788 tests réalisés, 30 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,81%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 18 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass